ولإرادة درا ولي كرم الجنة الحنان من كيد من خلا وساركنا للخل لي infinite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 Euh, lu jiitu ñuy dem maa yomb nag xam ngeen ni mooy bis bi waaye noo ngi dëkk bi sëñ Tuubaa wàccoon noo ngi dëkk bi nga xam ni ahlu badirin kiraam miin na ko noo ngi dëkk bi nga xamante ne mbooleem ñi cër ba ci Seydina Muhammad fii lañ daan fekk sëriñ bi ñoo ngi ci dëkk bi nga xam ni fii la yàlla joxe sëñ bi yëpp ñoo ngi ci dëkk bi nga xam ni jigéen di wut sëriñ tubaa muy Gabon réewum Gabon doon loo xam ni Euh, sëriñ bi ci boppam moo fi ñëwoon tànn tubaab bi tànn ko pour indi ko fi mu doonoon muuruwaar ñu jël ay doomu aadama sànq leen fi ku ñuy wax ñoxor Baay Juuf fii lañ ko faate ku ñuy wax man dumbe mbóoj fii la ko tubaab bi indi woon ñu doon doonoon ay bañkat ku ñuy wax Demba Allarbe fii lañ ko indi woon Sidi Muxtaar ab naar fii lañ ko indi woon am chinois bu ñuy wax Wang fii lañ ko indi woon ah, boo demee Côte d'Ivoire jàpp nañ fa fukki góor ah, juróom-ñaari góor dékku Jomati Alade Sossou Kondati Sombiklo ak Antignon beneen ñu rey fa Dax Silva Félix fii lañ ko faate tubaab bi da ko tànnoon muy dëkk boo xam ne ku mu indi même bu faatul physiquement mais di nga faatu moralement faatu ci côté yëpp mu indi woon fa sunu jàmbaar je ma nekk ak Serigne Cheikh Mbengue Baye Fallou Gabon Baye Fallou Mayumba sëñ Cheikh lan nga yëg tey bi administration bu Gabon ñëwee Sénégal ba jox sëñ bi caabi ne ko yaay tëj Mayumba yaa koy tijji keroog gis naa euh, nga am euh, xol bu sedd boo xamante ne nii xam naa fa nga toll ana tey ban message ngay joxe. ñi nga xamante ne jóge nañ Sénégal ñu joge ci yeneen i dëkk ñu ci saar baax sëriñ Basiru Tiib moom sëriñ Muntaxa teew te sëñ Koso Mbàkke daan ko teewal waaye eh, mention spéciale soxna ne bu njëgeen waaye noonu laa koy bàyyi rek ziar sëñ Xaadim eh, Buso sëñ Seexuna Buso waaye itam sëñ Seex Xaadim Fall eh, ñu bàyyi ko ngont mi ngay bàyyi Fall ana lan ngay wax mu yi sëriñ Tuubaa yi sëñ Seex sëñ Mamor ñu ngi am mbégte bu baax xanaa fàttaliku rek ba sëñ Tuubaa di wàcc fii ci ci Libreville naan laa daal li mbir man xaadali maa xaaba an kullu wali mu mel ni la sëñ Tuubaa waxoon moo confirmé wu tey sëñ Tuubaa ne woon na bi ma wàccee ci waaxub Libreville la ma suñ borom fayee loo xam ni moo fàddu woon wàllu yi loolee nag jotaayub tey bii ci la bokk ndax koo xam ne mus naa ñëw fii ni ko limee delluwaatoo woo say cosaan sëñ Tuubaa rek a ñëw Gabon ay ñooñam di delsi di topp ay jaar-jaaram muy doon ndam ci ñoom la mu waxoon maam Cheikh ne ko maam Cheikh tukki bi lolé mo am tay lolé mo gën di feeñ tay tay ji fi ñu dajé ci Libreville sëñ Muntaha yeblé sëñ Basa ngi nii toog Bali yebal fi Cheikh Mamadan ak njabot gi nga xamni ñom ñoo ñew tew fi suñ biir and ak sëñ Cheikh Khadim Fall Sen Talib bi ñew fi ndax bis bi kenn ku ne xamna ni moy ngontu mam Cheikh Rafal waye moy cérémonie officielle bi kon dal euh, tay mam Mor limay yek yëg na lool waye nak euh, manam day dadi sëñ Mamor manam daf di. murid yi ñoom seen bopp ñi fi ñëw seen saga andiwu leen fi ndax borom simaamul wala asila de laay fi yeddi moo woomat ay taalibeem andi leen Gabon te ñoom buñ fi ñëwee ku fi jóge mbeg rek ak pas-pas bu dolliku ak fa nga yemoon ci sëñ bi nga gën a yokku rek bu ñuy deel loolu la ñuy yóbbaale waat sëñ Mamoon Baye sëñ Cheikh mu mel ni suba dinañ dem yomba waaw boo ma doon euh, maa yomba ak euh, fi nga xamante ne fi lañ nekk moo fi lañ nekk mm-hmm. ci ay kilomètres euh, nan la nan la toll ak wax ko murid yi ba nu xam ni mm-hmm. ñoo ngi jëm bërëb bu sensible mm-hmm. waaye noo ngi jëm ci bërëb bu jafe bu difficile sëñ Cheikh Mayumba xam nga ni Mamor dëkk la boo xam ni dëkk bu sori la Libreville gi ñu nekk Libreville ak Mayumba estimé nañ ko à huit cent dix neuf kilomètres ci jamono ji waaye jamono jëf sëñ Tuubaa nekk na nga xam ne gaal amu fi oto amu fi dox tànk ngay mën a doxee te forêt bi munoo jaajaa ak tànk sëñ Tuubaa ñu koy jaarale ci ay gaali géej di ko joow jëmee ko Mayumba jooja jamono topp ak moom la guwee bi ba dem ci océan Atlantique topp ak moom océan Atlantique ba dem ak moom ci ndox mi naan la bañoo door ko yóbbu Mayumba defal ko séquestration juróomi at ñu tëj ko ci Mayumba yoo xam ku yàlla bind xamoo sëñ Touba nekk Sénégal foofee sëñ ba nekk fa def fa ay ndam bañ naan ko yàlla gabon nee na foofee ma mel ni ab jant foofee lañ jëm suba waaye nag maam moo li ci yees mooy président wu gabon bi nga xam mooy Oligui nga xam ni moom euh, ku bëgg yoonu murid la ku nga xam la moom ci boppam moom ministre des affaires étrangères dañoo waxtaan ak seen gouvernement ñu boole ñu ak ministre de tourisme ñëw seet sëñ Mountakha Touba Mayumba gën jëm caabi dekk ba seigne muntaha la ñew jox si Touba mu jox ñu and ak mom na la ubbil suñu bop bu ñu ma Mayomba kon dal lolo ci yes ministre bi nak nee na mag ñuy xaar ci Baie-de-Roi su talibé monté montagne sen ci fofé seigne Touba am juma ju mag ja war fa déparé ministre mi ñuy xaar and ak presse Gabon bép pour ubbil ñu yoon wi ñu door a ci Mor suba. jërëjëf Fati dégg nga juroomi wi at ya ca la mel ni jant foofa ca Mayomba nu war fa dem euh, euh, tawfiq Euh, production boog télévision waaye ànd boog maa yomba TV Touba ca kanam ak euh, ñi nga xamante ne ñëpp rek euh, ay site internet la ñuy fasatikoo sëñ Abibou Mbaye gis naa ko fi muy nekkoon conseil finance bu Ablaye Wade gis naa ko fi waaye lii lépp rek di ak cant boo xamante ne murit nañ sant Serigne Touba keroog la romb waa Indarloos machine ba rulle ba weesu Mandarloos ab la capitaine ble moo ko teeru ba woo Angleterre làkk yi tuuru yor yor la gaal ga tebbi jëm Conakry bisub dibéer noon ya naan ngiri ngiri ca tàkku saani suuf la gaal ga costé dun buñ naan tubak marañ yey konté foofa la Bamba njëkk a gisee kurmaana ak timili ku kurbo ñu néewi maana mu daal di romb akaraak waa Cameroun sa sandra la wàcc gaal ga ne fa ñuul waxtu la fa taxaw ñu liit mu déqi ilaa Conakry tubaab yay soqi mu dellu war ca gaal ga jaar limi jaar atami dem kotumi dem dawme ba bësatee Seex Bamba xëy dem dawme rombu legos ca kaw tubaab yay armée fii la français yem so yooyee waxtu Cheikh Bamba romb na leen mësta tiimal waxtu malaka ni maaliku inda daw mi maa kafani kafaani utaata zaw mi keroog la dam tabbi nag géeji Congo kab la pisa la wacc nema gongo boo déggee nag mu ne kab géeji Congo mooy bul fàtte ni kab la pes moo frontière ak Congo Brazzaville waaye frontière ak fa nga xam ne mooy Mayomba seigne Cheikh Mbeng wax nañu ko sànq waye lolu yep rek tubaab bi li bëggoon mooy kenn du fi tudd yàlla laa ilaha illallah kenn du ko fi wax kenn du xam alxuraan màggal gi du am kenn du xam maam Cerno Cheikh Ibra du am kenn du existé loolu la bëggoon waaye nag wolof ya nee dëjjin ja fay na mbaal ja jéem tële nag gàcce dee ja kon mbokki jullit yi ñu dem déglu sëñ Alaaji ci njàng moomu àndandoo koog yéen lu xew ci cérémonie bi rek nañ ko àndal ñu ngi ziar ñëpp nag maa ngi fi fekk nag sama rakk ndeysaan soxna soxna Mbaye Mbaye Sène eh, sama rakk sama xarit moom mi ngi fi and ak soxna yi xamna ñom ñoom dinañ ñëw jël sen wal ci kanam tuuti euh, def sen contribution ñu wara dem nak ma yomba e mourid murit ma yomba fa la ñuy waajale màggalu Sëñ Tuubaa gi di salu sinni jaata baloru markata kambaanu baana kuy tulloo barakata mol bi di moola dindi moo di diina tuubaa bi dinti diinoo bi diina mol bi للمعتدين طوبى ببنت جينات دينا لدباء كل نور كان ينتا انت بابا تو خوسناتا توبي توبي شريفو كنوالا توبي شريفو انت بنت مالا تنياجي سانا مني لو بانا اي والدي ñëwal tabaana bambalanooru ɗon to sibbo a naata taryaɓuɗi ɗon tabi na ɗumna bambalanooru ɗon to sibbo naata taryaɓuɗi an tabi ko ɗumna arsunowa kursiyo dindi laalo arsunowa kursiyo dindi laalo silaalo jiita wo fulowono boyta ɗintonooru bannaji saalo laata ridwaanu ol jinaanu musulu laata bintu looru banna ji saalu laata ridwaanu ol jinaanu musulu laata bintu looru banna ji saalu laata ridwaanu ol jinaanu musulu laata wali laata وساركنا للخل لي بر